nag ñun ñu ngi koy jëmale ci pencum xasida yi ci ndigalul sëriñ Abdourahman Wadd ak sëriñ Alioune Thioub ñi nga xam ne ñooy njiitul euh, kuréelu pencum xasida yi ñu ànd koog mboolem jànkati xasida yi nga xam ne ñoo féete ci sow jant am ci lennet ñu féete ci Touba ak feneen fu mu mën a doon ci réew mi euh, ku mel ni sëriñ Amsatou Diop nekkal ñu fii ci Touba ñu ñëwoon tey ngir. ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha jox mbooleem yoon wi yëpp rawatina jànkati xasida yi loola ci la ñuy woo bokki juliti ak bokki taalib di ci woo mboolem waa pencum xasida yi ak mboolem ñi ñu bokkal xasida yi ñëpp bàyyiwuñ kenn. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu bokki taalibe yep sunu bokki yep, yëpp nu ngi dellu si rek di fàttali ay kaddu ci kaddu yi yu yi mu melni wax ji sax matna seuk ndax ndigal li ci serigne Touba la bayiko ko Cheikh Mountakha dik ci jankati xaside yi boba ak léegi yakarna ku dib talibé te mbir bi ñor la xam nga ci lu bare bare bare waye bok ci mbir bo nopi ñu wola ci jox la ci la nga mom ni la nang ko saytu dafa dafa neex lol ci mbir lol ma waral jotaay bi may yëkkat sama kaddu nak ci daayira ci turu daayira tahsimu cheikhul khadim ci njiitul serigne Taala ak serigne Mbàkke mi top ci mom ak ahlu bi fu ci waay nekk li ko tàmbalee sowu jant ba Saalum ba Ndar ba Louga ku bokk ci tansimu Seexul Xadim na nga xam ne ndigal lii nga xam ne moom la Seex Muhammadu Muntaxa Mbàkke joxe ñi ma ko teg seen loxo ñu di jëwriñ cër biñ ci moom jox nañ ñu ko ba mat sëkk te itam cër bi rafet na rafetaay boo xam ne bii bett nañu sax ndax ku doon dégg da ngay jàpp ne fee rek la jëm waaye bi ñu jógee la ñu xam ne li wolof di lépp naa bañu naa jatu leen bañ naa jóg leen fekk na soccet jatu dal nañ ci bii tax na tànnal nañu cër boo xam ne bii barab bii nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacke moo ci joxe woon ndigal naka jekk jàngkati xasida yu mag yi daan fi daje di fi dundal guddik Serigne Touba gi ñeneen ñi dafa gàmmoo bis boobu lañ barab bii la ñu tànnal fi jàngkat yi yëkkati yëpp daje Serigne Talla Mbaye daal mi nga nee na mi nga woote mboolem ko bokk ci tans mu Cheikhu Khadim ak foo ci mën bokké bis bi da nga xam sa bisu bop bokkoo ko kenn na nga bokko bokkoo wa mi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lepp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contact len Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi ci route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote len gaaw ci 77 325 68 20 77 325 68 20 bu bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu ci temps am talibi bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc.